bu yaay Mawdi baal ma waay. non du Mawdi baal ma eh, du Mawdi baal ma. man la neex ah man la. dama dama tuuti sax ma ne ndax Mawdi. Ah, yow xam nga yow sa baat bu rëy bi waay nga gi nga bi ne gi nga marre bi marre moom du ma la ko wax fépp a diis. waay waay baal ma waay. waay waay sa baat bu rëy bi da xawal man moo ci ñëw na sama xar ci da xawal gisoo ba nga sama mi dinaa ko ma koy jaawale ak naan ñu dëkk bi comme que booy booy dox wallahi sama bu rëy na de nga may comme que booy booy dox dañ lay agressé eh. wala ñu toj sa bopp wala ñu wekk sa bëñ wala ñu patal sa bët balaa caa ma gàddu sama lii li nga yëf man dégg nga la agressé eh léegi. ginaaw yi kii bànn bànn bi ay tapen lañ. maa ngi yow danoo geer man maa yow man kese la man kese doon geer da ngaa fàtte. waaw man dama doon geer mais boo fekkee woo ko. man dama doon geer ba geer gi jeex. nee nga amoo benn sikaat. benn sikaat amoo man damaa sikaat ba yàq. man ay sikaat bi privé laa yor. waaw yow am sikaat ci tuur waaw sikaat ci tuur. naa ne ñàkk na gerte de. waaw dama waaw sikaat daal rafetal la wax. yow sikaat. dama man indi dama tiir jamono jaa ba mat bi ñëwee ma ko teg. eh jël nit ñi war a jël seen matuwaay man ni am ñu ne man li gën di ma kenn man ba ki rasul ba mu ma ci carte auto kar waaye waaye neex gi nga gi nga man ragalu ma lool man dama am waaye sëñ bi wax eh neex dënn pita bu buka, buka, buka bu iba patan doore lu muy def man ni dënn pita buka ko bomba je dugalé kuul ay waay ay waay ay waay yërëmal sa bopp soo xiiboo ne da nga xam ne da ngaa xiib yow waroo génn sax man dégg nga ma man ma melu ma noonu sax am naa maatu te njool naa bu ma te ñaaw naa bu ma nee nii mu ne nii nga nii rek daw xajal ma ma nii dañuy daw xajal ma. waaye ñaaw na je suis vraiment. man maa wéy bés bi bés bi màgg naa bés bi màgg naa ne bi laa. Hah? Mau ke dalam nih sama Jerman license deh. Iya, Jerman. Jerman. Jerman. Banyak iya, Jerman. Wah. Nah, Wah. Eh, eh, eh, eh. eh. Ya burai lagi. Wah, mana burai lagi. Wah. Jangan ngapa gerai. Eh. Wah, kamu nggak tahu nih ngam lagi. Wah, buang gua terus. Nah, deh nak. Ayo, deh. Boy, rumah sama orang alhamdulillah kato eh ki sama jarbaat la nuyu leen moom nuyu ma sa jarbaat ki may ki may ki may xool xool yow naka jekk sa bagage yi bëri gi nga xool nu mel ci taatu ci noonu nga mel yow yaa raw loolu da kanam gi nawet bi ni mel ni yaboy yaa ngi ne eh eh eh eh déet dama dama dama dama na ki kan la déet déet déet naa déet déet ki ki nekk sama jarbaat di dogi na Bayi mar, bayi mar, bayi non jox sama ngàndaay ma leen ku dof ay rek leen xool nag leen nag yow nag damay sóob rek damay sóob kii moo gën a bëri coow dinaa dóor tapé dina dóore man dinaa dóor agressé si koñ bi rek laay napp fii dimbali woon bi kii moo gën a bëri coow dëkk ba ngir yàlla bu fi keree xuloo bu fi keree ma rek rek la rek yow noppi waaw toogal waaw waaw mardi man moo ci dara eh, eh, yii ba mardi da bari dis yow mën ko joxe mbaa doo daanu bu ma la koy bàyyi nga daan bu ma la koy bàyyi nga daan bu ma la koy bàyyi nga daan xoolal li yow xoolal de yow yaa ñàkk jom nekk neex yow sa wax ju bëri yëpp amoo doole kandem yi nii la ñuy def kandem sa néeg man maa ngi kandem marto yor ngandaay ñu lay kandem tey laaj neex laaj ko kandem man